xale bu photo wu dugal loo ca wax. jëm jëm bu dugal bu am borom kër ku ci bind jëm. yaa ngi ci bàkkaar ñu bind la bàkkaar. dégg nga kon xam nga ñii ñi bàkkaar loolu ñun. mais eh, kaay kaay kaay hmm. kaay kaay mais mais mais mais Nafi tey jigéen ngay sëy ni sa jëkkër par force ñaata ñaata tey ñaata jigéen ñooy santaal seen ay boroom kër ci kaw la waaw. Mm-hmm. pour lan iPhone bi ma la waxoon fu mu toll. wallaay caabi oto yu bëri. caabi oto bi ma la waxoon. caabi attention de jigéen saa yu saa yu saa yu saa yu nu mu tudd. wala nu ko maye suuf saa yu liwee jëkkëram santage borom këram. na ñaan yàlla doom bañ faa sos. Hmm? guddi googu parce que. ndax ah, parce que bu ci doom sosoo. lu muy doon xale boobu mënul fexe ci àdduna ba ibbi benn porte bu ibbeeku. Hmm? Hmm? doomu santa bu fekkee ne day liggéey 5000 lay fay ku weer. balaa muy jot 5000 bi dina daw valeur bu 25000 doo ko. xale yi de fi ñuy ñëwee dañ koy bloqué téye. waaw ah. du génn léegi fa lañ lay waxee yu bon. Mm-hmm. naan la yow sa yaay démb nga ni. ñu lay nga naan sama yaay. lu mu la waxoon mais est-ce que xam nga Mouhamed kuy sëy waroo wax. Ah? ah xale yi oustaz xam nga def dañuy bàyyi ñuy génn ñu téye. parce que xale yu bari wax yëpp loolu ko waral. maa ngi ko waxee oustaz. Ah? bari waxu xale yi ñëpp ngay gis loolu. ah xale yi dañuy wax mooy njaboot gi dañuy bari wax daal xale yi. dañuy wax dañuy làq seen lu dul seen làq. xam nga léegi da ngay ñu naan la. Oh sama sama doom bi ndeysaan amagu ñaari at commencé wax. waaw sëy di tàllaan ko tant que nit a koy def. doo ah, xale dul am ñaari at di wax loolu la.

wax naan. Eh. ñaari nit góor ak jigéen bu ñu ngoroyoo. ma seytaane daf siy laxasu parce que ah. daganagul. Ah. mais nee nañ bu ñu xasee ba fas sëy bi foofu seytaane amatu fa. loolooy waral ñu naan sëy yi du neex parce que lu amul seytaane du neex. ñu ne eh, goro bi mooy daal xam nga ay wax la rek doomu aadama bëgg lu bees ma ne. Eh, kii ku fi jox téléphone bu bees dootoo am jàmm. yéen ñii yëpp ku fi yor sa téléphone lu mat un mois. ni nga ko yenoo woon bi nga koy doog am premier jour borom ñetti bën <laughs> ah foo toll di photo da ngay dem deux mois trois mois foofu la ci waan bi teg ko mais nit moo noonu mm. doomu aadama boo gis lu bees moo xam mm. tey ñaw bi bu bu bu demee ci gom dem ci daa kànde demaat ci gom demaat ci daa kànde. pare bu bees bi may doog a ñëw. naan di dox. d' yow euh, fi nga dugg noonu. Mm-hmm. saabu na waaye du gàttal fi nga newoon. Mm-hmm. fi nga newoon wax est-ce que duñ dem pub euh, ah, euh, ah, na de. sama doom ah, bu ñu jógee pub ci wax ji parce que tamit oustaz xale yi teel nañoo wax. mais wax ji moom li mu si waroon wax yow wax na ko. maa ngi ñëw <laughs> moom <laughs> su koy dee de.